alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim sayidi al urbi wal ajami muhammadin sallallahu alayhi wa bokki jullit yi ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ngeen di fi bégee di fi yége yàlla mu ci seen émission dakar midi point net bi ñu leen daan defal ci seen émission shukran di mbokk yi nga xam ne ñu ngi safu suñu jataay yépp tey nag suñu jataay dañ koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne lawlaahu ma xalaqa allahu moom yàlla du bind dara ba di ko amal yonentu boobu nga xam ne lu yàlla bind ci kow suuf nim ci ñore yàlla amul benn mbindaafoon bu ko ñore sunu borom bi subhaanahu wa taala ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala moo sepp ci turam yu tedd yooyu ñaari tur yoo xam ne bi mu ko seppee sax wax nañ ne malaayika yi xaw nañ ko laaj ne ko sunu borom lu tax nga def lii muy turam wi ñuy wax rauf ak rahim di ñaari tur yu ëpp doole yoo xam ne ñeewante gu metti gu sunu borom bi subhaanahu wa taala am ci jaam ñi moo tax mu wax ko ndax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha binnaasi la raufur rahim am na feneen fu ko wax ne ko rabbana innaka raufur rahim waaye beneen rauf rahim boobu mu ko indi ca laqad jaakum ndax yàlla moom raufun binnaas parce que moo bind ñëpp waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raufun bil muminina parce que moom lañ moom jullit ñi lañ ko délégué Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla tuddee tur woowu ñu laaj ko ne ko lu tax nga tuddee ko ko mu ne leen bu ngeen demee ba ca kanam da xam li tax mu tuddee ko ko euh, jamono di dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu buuwa dikk ci moom mu doxal màkk mu dëgër mu ne ko am kër bàyyi am nga kër ndey gongee ko fa wuti tayif ba mu demee Taif fekk fa ay nijaayam Habib Layla Mas'ud euh, waxtaan ak ñoom ne leen man kat dafa am lu ma yàlla jox benn mission boo xam ne dama ko war a dox wan leen ne yàllaa ma yónni jaamu xërëm waratula existe benn buur mënatula ne ci kaw suuf si bu dul yàlla mais ñoom wax ji dafa rëy ci ñoom ba mënuñu ko dégg ñu ne ko ñun daal bu fekkee yàllaa la yónni ñun dang ñu ëpp te ñun duñu wax ak ku ñu ëpp beneen bi ci desit mooy bu fekkee yónni la waxuloo dëgg te ñun duñu wax ak ku dul wax dëgg waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam mu ne leen nag gannaaw noonu la demee dama bëggoon ngeen sàng ma sutura ndax ni ma doxeelee ak yéen su ma demee ci samay kër wéy jur ne leen nii la samay najaay doxalee ak man danañu ma ree waaye taxul ñu may ko la mu bëggoon ñu boole koog dof yi ak xale yi ñu di ko sànni ay xeer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn ñu ngi ko sànni ay xeer muy dem ñu di ko sànni ay xeer ndeysaan ba yaram wépp di nàcc fees dell ak deret mu ngi ànd ak xale bu ñu doon wax Zayd ibnu Xaaris mi ngi naan ko Zaydu fompal ma deret ji deret ji bu laalee suuf àddina tukki ndax deretu yonentu suuf àttanu ko Zeydi di ko fompal deret ji ba ñu egsi ci benn garab yonent bi gand daanu ndax booba li mu sañe bari na euh, yàlla dogal bi mu señee daanu am ñaar ñu doon dagg seen toolu raisin wala tàndarma dagg ca benn cëgg jox ko xale bi ñu nekkoon ak di jaam bi mu ngi tuddoon xaddaas dëkkoon ca niinuwaa ñu ne ko demal jox ko waajale dafa mel ni ku xaw a loru te tàngoor wi metti na mu dikk yëkkati ko jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama sang yi la dañoo la ko may ne pour nga barkeeloo ko parce que dafa tàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lekk ak mu ne bismillah xale bi ne ko waaw baat boobu di mosuma dégg réew mi di ko jëfandikoo xamuñu ko foo xame baat boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow laay laaj foo xame baat boobu foo dëkk xale bi ne ko man maa ngi dëkk niinuwaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko niinuwaa de amoon naa fa mbokk xale bi ne ko ku fay sa mbokk mu ne ko nabiyullahi yunusa xale bi ne ko ah kon yow yonent nga yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam maag yunusa ñoo bokk fonction yonent la may yonent te man maay supérieur ndeysaan xale bi daanu ci kawam di jooy ci la jibril agsi ne yonent bi sa borom day joxe na ndigal ci kaw ak ci suuf ne ñaari montagnes yi ñuy wax lax sa bay na nga xam ne ñoo séq Taif soo joxee ndigal ñu màbb lépp ci kaw dëkk bi parce que naa Jibril dafa bari woon doole dëkk bu yàlla mos a bëgg alak bu egsee laafub càmmoñ bi lay roof ci suuf wëlbatiku mu daanu ci seen suuf si ci seen kaw yàlla wax na ko ci alquran wa iz nataxna al jabala fawqahum Seydina dëkk bu yàlla mos a bëgg alak rek day egsi tourner montagne bi ci seen kaw day seet tund wu dëkk ba rek mu wëlbati ko dëkk ba raaf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko jibril waxee loolu dafa jooy ne ko ndax yàlla lii la naral sama xeet wi ñii dañu ma xamul mais bu ñu ma xamoon duñu ma def nii maa ngi koy ñaan mu wëlbatil ma seen xol yi ba ñu gëm ma sopp ma ndax bu ñu ma gëmee sopp ma duñu doxalee nii keroog la jibril daanu ci ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka la anta raufur rahim giñ naa ci yàlla ne yow day sallallahu alayhi wa sallam rauf ak yàlla tuddee woon tur woowa ndeke yàlla xam na lim def ne yaa ko méngoo mbokk yi kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo daan wax ne anaa min allahi wal muminuuna min nii man maak yàlla waaye yéen ñëpp yéen ak mana te wama xalaqa arrahmanu say an li nafsihi siwa sayidil mahmudi wa huwa alxabibu yàlla lu mu mës bind ci kaw suuf si rek amu ci dara lu mu bind ci kaw addina bi mu tege fi ngir boppam lépp lu yàlla bind ci kaw suuf si yàlla nga ko taarale jëmmi yonent bi kon yàlla nañu yàlla def soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp ñu ngi ñaan yàlla mu def ñu ay dëgg-dëgg jullit ñu ngi ñaan yàlla koor gi ñu soobu yàlla nañ ko jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah